ngir ma dal am ci réew mi moom njiitu réew mi démb ca conseil des ministres sant na gouvernement premier ministre waaye itam ñu sàmm jàmm waaye yéenekaay baa ngay laaj ana kuy dialogue leneen lu ëlëb journal bi itam mooy transition bi ba kañ la jëm démission ba nuy xaar ak buñ yeggee ñaari fan weeru avril ana luy xew les échos ne fi ñuy am tontu daal jàppale ne la xew conseil des ministres démb mooy Macky Sall ak Amadou

gendarmerie teg na leen loxo bés bi ne moo ne Macky Sall ngay wéy di wax ne moom décrispation la bëgg maanaam yëf yi ni mu teŋee ak fitna gi xeeñ lépp tege ci suuf journal bi ne wax na ci emprisonnement yi yi ma nga wéy di doon équation Macky it yéenikaay bi ne yeesal na kóolu ci Amadou Ba premier ministre am bi ànd ak moom ci dàqum élection gii mu dogal yéene cabinet ba dogal ba jibee gaa tàmbalee tekki seen ndombal tànk Macky démb la mu wax ay ministre am mooy jàppante leen solidarité ci boppam ngeen war a wone tribune wane ci xëtam gu njëkk Macky Sall ak Amadou Ba ñuy nuyoonte yéene kaay bi tuddee loola jeu de dupe entre Macky et son PM ak li fi xew lépp démb ku ne wax nga sa morom ne maa ngi wéy di la wóolu maa ngi wéy di ànd ak yow war ca wetam te waajal élection beeg dialogue bi le soleil ne dëgg la de loola la président Macky wax démb ca conseil des ministres laas ne leneen lu fa wax mooy nanu ubbi bunti dialogue yi te dox jëm ca nu mu a gaawee l'observateur ne kaay ma jox leen détails yi njiitu mi démb ca conseil des ministres séance d'explication la fa doon def maanaam di wax li tax mu dogal dàqum élection yi Macky bu nekkoon ci logique gu toog ci nguur gi du defee nii neneen lay def élection bu kenn dut ànd ànd wàcc ci terrain bi taxawu seen candidat waajal élection bi waajal dialogue bi mooy li Macky Sall sant ay farandoom démb démb it mook Amadou Ba yéenekaay bi ne échange de civilité lañ doon def ku ne woon sa morom wekk ak kóolute kóoluteb Macky Sall lu waay te Amadou Ba ak engagement wam l'observateur am cay dikk nu mu gën a yaatoo ak akub jàngat libération moom li mu jàngat ci lii lépp mooy Macky Sall deltuwul ginnaaw benn yoon ci dàqum élection présidentielle bi journal bi ci xëtam gu njëkk ne Macky reste sur sa position bi ak lanu ko wax lépp teewul Macky moom ma ngay wéy di doxal ndax ku dégg démb la mu wax ca conseil des ministres xam ne Macky fas yéene wu dellu ginnaaw ci dàqum élection présidentielle bi le réveil ne waaye communauté internationale baa ngay wéy di ko ŋàññeeg di ko mbambal union européenne moo ca njëkk weddi na nguuru APR bi États-Unis sàkku ñu amal élection bi ca bés ba nu ko jàpp France di sàkku ca Macky mu tëgg élection yi ci nu mu gën a gaawee source a ne a booba résistance baa ngay wéy di jàkkaarloog moom candidat yaa ngay campagne askan wi dana wàcc ci mbedd mi àjjuma ji Macky Sall yéene cabinet bu Pastef sax loola lay sàkku ma ngay sàkku ay sanction américaine ci Macky Sall ak ñamu àndal gel des avoirs maanaam lépp luy seen alal foofa nanu ko téye waaye itam nanu leen a tere tukki foofa ñoom ñi nga xam ne ñoo sooke mi lépp mbir Thierno Alassane Sall ne moom Macky sax kenn waratu ko woowee président dañu a Fall ne fi mu ni daal la ñu war a def mooy tegi jéego ndax moom Macky Sall jamono jii ñuy wax ma ngay tegi jéego yi dem Vox Populi jàpp ca loola ne opposition bi candidat yi danoo mer ba futt yéen kaay bi yeggee ñu kàdduy Thierno Alassane Sall mi ne gaa leen di waajal ay coup am na lu ñuy togg ngir teg cour constitutionnel docteur Cheikh Tidiane Dièye ne force obscure terroriste rebelle yi doon menacer Sénégal fi ni pale lanu féeti ak fépp fu waa Benno pur Mamadou Aliou Dia bu pur ne waaye na seen xel dal ndax Macky Sall danañu jàkkaarloog moom ci nii mbaaca ne lépp lu nu am ci ngànnaay it daanu ko jëfandikoo ngir janoog moom guddi yu lëndëm nag la Sénégal janoon rawatina ci wàllu koom lépp dàqoom élection présidentielle bee ko waral njàngat la wu Cheikh Mbacke Sène mi xelam màcc ci wàllu koom-koom def ci kaay bi di source a Sud Quotidien ne lii lépp nag la koy àtte lanu ca mën a yóbbu mbaa lanu ca mën a génne ma nga ca loxoy juróom-ñaari sages yu conseil constitutionnel journal bi ne fi mu ne ñoo yor seen cëggal conseil constitutionnel mooma ñu dem kalaame ji ci dàqum élection gi dafay wax ne daa incompétent maanaam mënu koo atte wala dafay tekki ndombal tànkam laaj la wu sampe ci xëtu yéenikaay booba la mu gis ca loola mooy bennoo bokk yaakaar ci boppam moo bi ne may na parti démocratique sénégalais fi ne mu taxawaat bay wax leneen naan nanu ubbi chantier cour constitutionnel bennoo it ñàkk na Latif Coulibaly ñàkk Awa Marie Coll te bu mayiwul ci ñàkk Zahra Iyane Thiam la jëm Amadou Ba moom journal ba ne ma ngay wéy di ànd ak Macky Sall waaye moom ak diw gun teg ci taala yem ba teggeekuwut ca moom Oulimata Sarr mi fi newoon jëwriñ yéene bi ne moom la Macky Sall mu wuutu Awa Marie Coll Seck Moussa Bokar moom lu ko taskatu xibaar yi yequ tey dañ koo fàtte yéene yépp daanaka ca moom la ñu xëy ak éditorial tuddee libération ba léegi ci ay njombe la dëkkeek taskatu xibaar yi delloo ginnaaw àq ak yelleef gi taskatu xibaar yi amoon dundu leen toroxal leen taskatu xibaar yi limal ko ay njombeem ba ca ëpp doole mooy ba mu def keroog coupé signalu wal fajiri ba noppi xalifa ba dolli ca ne nguurug Macky jeex na tàkk te dafa war a dem ndax bëggatunu ko doyal nanu sëkk ci moom xalifa ba sàkku ci moom Macky mu dem balay yëf yaa gën a ñaaw Moussa Bokar Thiam wax ju ñaaw a jiite mi révélation ne ma ngi cay jéem a deltu ginnaaw ndax ma ngay jéggalu sëriñ bu Rose Wardini mi double nationalité ñaawal gàkkal candidature am booba mu doon dox jëm l'observateur ci la xëy defab jàngat booba jamono stade da ngay def taxaw seetlu ci coupe d'Afrique des nations ba gaynde ya ca gën a ràññeeku tudd ca Edouard Crépin Pape Gueye Lamine Camara nit ñi ñooy gaynde yi gën a mën les meilleurs lions fësal leen ci xëtam gu njëkk ca xët googa la ñuy taxaw tey ñun ñaanal leen kenn dal ak jàmm dig daje ëllëg